nekk ci gannaawam jàppale ko la preuve bi mu wootee bi mu wootee ans bi mu wootee tey jii opposant yi mhm. mais ku mel ne Malick ku mel ne Idriss Seck mais dan dem wuyu ko déglu ko ndax tey xam nga tax ñu dem wuyu ko c'est parce que tey jii Sénégal moo toll fi nga xam ni tey jii at lii xew muy pandémie euh, Covid 19 bi muy euh, coronavirus bi dañ war a jàppoo xeex ka mu jóge fi te kuy xeex nag soxlawu kuy xeex lu mel na jàngalo bu mel na coronavirus soxlawul ngeen di xajaloo tey jii dañu war def l'union sacrée derrière notre président jàppale ko pour lii dañ. parce que kon politique dugg ci daal. comment yow pour yow politique. aujourd'hui politique dañ koy teg fële man xam nga kañ laay wax politique. non ñoom. comment résumé bi laa wax ndax duggalu ci ay affaire politique ak yooyu. si lan ci xeexu corona bi nii. da nga ne dalal gars yi fii ñëpp booloo. non non c' est pas politique ku wax ne dafa politique rek dafay wax lu ko neex. ndax président tey jii pour mu def loolu tey jii. tey dañu war saluer li mu def. ndax tey li mu def. comment résumé bi laa wax ndax dugalu ci ay affaire politique ak yooyu. si lan ci xeexu corona bi nii. mais da nga ne dalal gars yi fii ñëpp booloo. non non c' est pas politique ku wax ne dafa politique rek dafay wax lu ko neex. ndax président tey jii pour mu def loolu tey jii. tey dana war saluer li mu def. ndax tey li mu def franchement woo ñëpp ni leen kaay leen ñu ànd xeex Covid bi fii nekk coronavirus bi loolu la def. et je crois que tollootuñu tey Sénégal ku xool tey jii sunu njiit yi gën mag ku mel ne Sëñ Mountakha xool leen ko mu def. xool leen li mu def ku mel ne tey jii eh, Serigne Tidiane bi xool leen li mu def ah mais ñooñu ay exemple lanu murid yi ak Tidiane yi ay exemple lanu sëñ Babacar Sy Mansour ay exemple lanu yàlla nañ fi yàlla bàyyi bu bu bu yàgg yàgg yàgg yàgg ba ñuy tete continuer ñuy xool te taas nu seen bàkkee mm. pour wax rek ni ñooñu li nu def ñun dañu war a ñoom li ñu def man koo nekk benn pour xeex affaire bi pour mu jóge fi c'est ça le plus important ndax président li muy def defalu ko boppam defalu ko waa këram ndax tey jii li ñuy def yëpp tey jii muy El Hadj Diouf tamit muy yow sa de sa waa kër yi ñoo ciy am. d'accord mais doo démarché quand même. di ko mën la mosuma taxaw démarché wala quoi que ce soit tey jii les choses vont sortir mais bu si El Hadj Diouf gagné gagné da ngeen gis tur El Hadj Diouf <laughs> non mais mën nga mën nga mën nga mën nga mën nga bañ a mën nga mën nga soumissionner indirectement. su ma demee bay bay démarcher kenn. 14 hmm. milliards wala 6 milliards. ñàkkuma fayda je le ferai pour moi et pour pour vous dire encore une fois de plus loolu amul fenn. Hmm. loolu amul fenn d'accord. ñu ñu ñu daal di des kon ci wàllu feebar bi sax nga xam ne moom la ñu tudd ba léegi xalaatoo ne wàllum séddale ceeb yeeg yooyu dafa mel ni lu commencé jël le dessus sur le euh, ci plan euh, xaw a gagné daal euh, plan sanitaire bi santé. non du loolu man mënu ma ko tudde loolu mais nag nit da ngay gëm yàlla. xam nga tey président bi daa mel ni turu ci affaire ceeb bi moom la gars yi. gën a c'est que nit ñi ñoo gëmatul yàlla. Ah, gëm yàlla mooy la gëm yàlla xam nga mooy lan. Hmm. Euh, nanu xalaat sax seen santé balaa ñooy xalaat diw gañe na wala diw gañewul wala lii man mënuma la wax diw si lii wala si laa wala si lële affaire bi nan la tënkoo mais dama ni nit ñi ñoo war a maanu bàyyi ku nu jox liggéey bu mu def ka les gens qui ont parlé ñi si wax ñëpp dugg ci coow li bëre ñoom ñoo fi indi ñoo fi bëgg indi transparence am na ko transparence man dama ni hmm. xam naa le maire man dama ne Mansour Faye dama ko xam le maire de Saint-Louis. Mansour Faye dama ni. li nga ko jox pour yow leer. déggoo li ma la wax. dama ni man du ma ko juger parce que les gens le jugent parce que c'est le beau-frère du président de la République. mais non, il a dire il est dama ni il est il est com il est compétent et su compétent lu woon je connais le président Macky Sall du ko jël tekkat ci wetam. Mansour a toujours été compétent Mansour a eu des business qu'il a réglé toute sa vie tout seul donc. je suis pas là pour le pour le pour le défendre ou quoi que ce soit. mais dama xam nit ki défendre même bu dee sportif nga tam yaa ngi ci régime bi bokk ci ñi conseiller président bi dëgg la loolu dëgg dama ne ndax yow jàpp nga ne transparence am na bien sûr transparence am na 100 pour cent. 100 pour cent 100 pour cent laa la wax transparence am na la preuve pour te dire transparence am na man boole ma boole nan ma ci sa bokk ma ci et pourtant il l'a dit. man déggoo lim la wax je l'ai dit et je le redis. yéen li tax ñu tudd la ci man te yow. man mii di wax bokkoo ci ñu tudd la tam encore ci gerte ga. dama ne xam nga bu xam nga lii bu doon bu njëkk rek ñu waaw. mais yow gerte gi coow li assemblée nationale semence yi. waaw ah, dama ne loolu dafa garaaw. dama ne je l'ai dit xam nga feuille bu weex. laa ci loolu lépp. feuille bu weex tal la. Mhm. laa ci loolu lépp. doo ci dara. xaw ma sax nu mu demee. xamoo nu mu demee d'accord mais mais alaaji xeex bi fi mu nekk nii yow tey lan nga doon wax daal maanaam sénégalais yi parce que ñii ñi ngi naan nit ñi nañ toog seen kër mais nit ñi tam pour ñu toog seen kër il faut ñu lu ñu lekk. mesure barrières yi gars yi dañ koy violer Sénégal daal dafa mel ni ragal ñu feebar bi wala am na ñoo xam ne ba tey gëmuñu ko. Euh, gëm nañ ko. peut-être euh, du ma ne ragal lu ñu feebar bi mais li ma leen di wax li ma leen di wax rek moo di. nañu xam ne lu sérieux la lu sérieux la c'est que il faut que tam nit ñi ànd ak dal ak tey dal ak tey moo di xam ni coronavirus bi lu am la tant nag duggul sa famille doo ko xam tant duggul sa famille doo ko xam te bu duggee sa famille balaa mu fay génn dinga wax lu set ndax luy law la moo tax may ñaan sénégalais yi di ñaan africain di ñaan le monde entier ak africain mën nekk na respecté liñ ko wax ndax corona man xam naa ñu mu dal et xam naa sama benn grand bu gën a bu ma gënoon très ku mel ne Pape Diouf gis ngeen nu mu ko daaneele nu mu ko yóbbulee en peu de temps te euh, moom sax ku doon fagaru la ku doon seet boppam la ku doon. Euh, au niveau sanitaire kenn amul loo ko ko doon toppatoo boppam la donc. surtout cas communautaire yi. cas communautaire yi. ñi nga xam ne xam ren. Euh, avant ren sax mos na ma woo ne daf bëgg liggéey man nekk sama agent. Euh, fekk temps yooyu man Thierno Seydi moom ma ko présenté woon ñu nekk ay xarit. mun ma def bëgg liggéeyal man ma ne ko grand man je te respecte tellement bëgguma liggéeyal ndax nit ki booy liggéeyal moom di ngeen jàppante te man ak yow xam naa ne warul nekk luy jàppante je veux bi ma équipe de France di espoir moom mu naan ma bul dem espoir ñëwul Sénégal convaincre ma ba ma ñëw Sénégal temps yooyu moom ak Mbaye Ndoye ah, président Pape Diouf président Pape li gën a tax ma ñëw Sénégal ci football fi fii si la bokk après loolu nag ñu nekk ay ñu nekk ay